ñetti laaj la ma laaj ñett wax ji bëri na ku nekk di inventé lu ne bind nañ ko waaye ñetti laaj la ma laaj gis nga interview bi su euh, audition bi su guddee maa ko guddal audition bi mënoon na durer 15 minutes audition bi mënoon na durer fukki minutes ak juróom ndax doyen des juges ñetti question la ma laaj mu pare. substitut procureur ne dafa am ay laajam ma ne ko duma tontu say laaj ndax parquet boo xam ne ci complot la dëkk duma ko tontu te dinaa la wax fan ngeen complot yi naa la ci jox ay preuve mu lem ay bagaasam toog ca la ca pare kon interview mu munoon na yem foofu audience bi munoon na yem foofu man maa ko yokk maa ko guddal parce que it li ma waroon wax il fallait ñu bind ko ci dossier bi lan laa wax doyen des juges te dinaa tëjee nag ay laajam li ma ko wax mooy dossier bii lañ ma ciy jiin dara amu ci ay kàcc neen la te yow doyen des juges yow bi ma inculpé boo amee ay preuve teg ko ci table bi parce xam nga ak ak droit boo mën a jël muy droit canonique li ñuy wax droit wu diine diine chrétienne comme diine jullit muy sax suñu aada ñun muy droit bi ñu yor kii ñu ki tuumal mooy indi preuve waaye di ku ñu tiimal mooy indi preuve su ma duggoon ci bureau mu andi ay preuve teg ne ma lii de wane na ni da ngaa def li la tuumal kon wax ji jeex na bu yàgg waaye amul benn preuve benn benn preuve boo xam ne doyen des juges génne na ko walla procureur ne liñ la tuumal lii la amut du benn preuve du lu ñuy xool du lu ñuy dégg du lu ñu bind zéro preuve un dossier vide boo amee preuve na ko génne amul benn preuve lu dul déclaration plaignante bi génnewul preuve naa ci dellu si nag benn preuve génnewu ko waaw ma ne ko nag bu ngeen amee ay preuve ana preuve yi parce que loolu day tax mbir mi gaaw dañu naan wàcc daanoo ci gën a gaaw man de su ma jiiñee nit dara bu ñu nee këtt ne jonn ma génne samay preuve teg ma ne ko nag comme amu leen benn preuve dossier bi mille vingt 2021 8 mars 2021 biñ may inculpé la ma bindoon ci dossier bi mooy li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma sax lu niroog loolu li ñu wax yépp weddi naa ko xaw ma lu niroog loolu waaye yow ma ci loolu de ma ne ko en plus de ça nag dossier bi ab complot la te complot bi ji ci nekk diw ak diw ak diw ak diw la kon dossier bi ñaari branche yooyu la dama bëgg Sénégal yi déglu ma bu baax dama di kuñ doon jiiñ ba far tey man maa wëlbatiku di jiiñaate li ñuy wax l'arroseur arrosé man lañ doon jiiñ ba far man tey man maa wëlbatiku di leen jiiñ waaye senegal yi laa bëgg ñu déglu lii may wax nii man mi ñu jiiñ ñoom indiwuñu benn firnde benn preuve ci liñ ma jiiñ man mi leen jiiñ damaa indi ay preuve teg ko ci table bi lan laa leen jiiñ dama leen jiiñ ne complot la boo xam ne ñoom ñoo ko organisé su ma nee ñoom nag dinaa lim ay nit fii yoo xam ne ñoom ñëpp seen loxo dafa takk rëpp ci complot bi nee naa leen complot bi Serigne Bassirou Gueye ancien procureur de la République mi ngi ci daanaka moo ci ëpp sax ay ay agissement ki ko jàppale dëgg dëgg ci li mu doon def mooy commandant Abdou Mbeng tey defe naa colonel la waaye jamono jooju commandant la woon ka ca tegu te loxoom taq rib ci complot bi mooy général Moussa Fall nga xam ne tey moom la ñu dénk lépp luy gendarmerie moo tax mbir mi jaral ko lu ne fi mu ne nii gendarme yu ne woon ci bàmmeel sax génne nañ leen soxla leen tenue Moussa ñetteel bi di maître Gabi soo maître euh, euh, fàtte naa bi waaye Gabi lañ koy woowee moom mooy juróomeel bi bokk ñu teg ci maître joor Diagne bi nga xam ne ci lañ ma wax soxna la ci Antoine Diome ba leen fàtte ni Antoine Diome it lu ne mu ngi koy daj ci mbir mi bañ na ba moo dem jël ay ay waa bip ne mooy mooy mooy mooy aar ndaw sax di ko rawale tey ma nga Saly gannaaw suba mu nga dakaar gannaaw suba mu nga fële ñu teg ci Mamadou Mamour jàlloo mi nga xam ne loxoom takk na ci rip waaye ñooñ ñëpp boo leen dajalee nag seen digganteek Macky Sall mi ne ci gannaaw lu juge war a mën a lu ñëtu la te teg ko fi ma teg nag li ma wax mooy yàlla dafa def ñoom bi ñu commencé ba léegi lu ñu nas rek yàlla génne loo xam ne foogewuñu ko déjà ci dossier bi rek ak niñ ko traité am na élément yu bëri yoo xam ne nekk na ci déjà naa ci dellu si waaye yàlla dafa def bi coow li amee gendarmerie nationale ci njiitalu général Jean-Baptiste Tine comme coow li dafa bëri woon ba gendarmerie nationale jaxasoo ci mu am coow ci biir gendarme yi général Jean-Baptiste Tine bi nga xam ne moo newoon haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire